اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماء يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيدي فضيلة الشيخ محمد الحافظ ابن سيدي السابق الأول الشيخ محمد النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا ضيف السنغال أهلا ومرحبا بكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا فالبيت بيتكم فنحن الضيوف وأنتم أهل البيت أيها الجمع الكريم سيد مدير المركز الثقافي الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد رئيس الحي سيد بابا كرقي الشيخ صالح الشيخ محفوظ حيدرة السيدات والسادة كل باسمه وجميل واسمه نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد الحافظ النحوي غني عن التعريف فهو رجل معروف في العالم الإسلامي كله شرقه وغربه محاضر وداعية إسلامية كبير وشيخ عظيم وابن شيخ عظيم والسنغال تعرفه ويعرفها فهو الذي نظم هنا مؤتمر علماء الأفارقة بدكار في زمن الرئيس سيد عبد الله واد وكذلك مؤتمر علماء الأمة الإسلامية كلا جمعهم كلا في دكار حتى يتكلموا عن الإسلام والمسلمين والفضل في ذلك كله يرجع له فاليوم إن زارنا نحن في معهد الإحسان هنا فما ذلك إلا ليتفقدها أحوالنا لأن له فضل كبير على هذا المعهد وعلى صاحبه فجزاه الله خيرا على تجشم العناء والتعب والسفر حتى يصل إلينا في هذه الأمسية المباركة من شعر من شهر شعبان المبارك فإن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها عل أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا فاليوم نحن نتعرض لهذه النفحات الربانية بهذه الزيارة المأمونة المباركة فحبا منا لهذه هذا الحي ولما عرفناه في أهله من تقدير للأولياء والصالحين والشرفاء حرصنا أن تكون هذه الزيارة لوستفوار ومنها لدكار كلا فنقول مرحبا وأهلا وسهلا mbokki ñu ngi leen nuyu yéen yëpp ku nekk ci turam ak santam di jiital tuutu nuyu boobu sëriñ bu mag boroom xam-xam bu mag Cherif la euh, xam nañ ko ci àddina yëpp ci oote ci yàlla ak ci tasaara diinul islaam léegi la ko doon Seyd Mansour mu am na ay taalibe yu bari ci Mauritanie ak Gambie ak Sénégal ak uh, Arabie Saoudite barki démb la jógee ci Gambie ci président Barrow moo ko invité mu ñëw jaar fii ci dakaar ñun ñu am mbégte pour invité ko fii mu ñëw ci institut moderne al ihsan pour euh, ñaanal ñu ci barab alquran bi pour ñu am ci teewaayam barke pour ñu am ci teewaayam yëkkute ci yàlla ci zahir ak ci baatin cheikh mohamad al xaafid al nahwi baayam mooy njëkk a ñëw ci Baay Ñas ci Mauritanie yëpp moo tax ñu wax tudd ko saabiqul awal mooy ku jëkk ñëw ci naar yëpp topp Baay Ñas te assaabiquun assaabiquun ulaayika almuqarrabuun kon mboolem taaliba naar bu ñëwee ci gannaaw loolu Cheikh Mouhamadou Nahwi moo tax ñu ñëw moom taawam la xalifam la ci tànkam la topp ci tasaara lislaam tasaara diina wax naa léegi na moom moo mus a organiser fii conférence des oulémas d'Afrique ak conférence des oulémas du monde ci taawu président Abdoulaye Wade mboolem xeeti àddina ulama yi dajale leen fii ci Dakar kon eh, loolu Dakar xam na ko te xam nañ ko président Macky Sall xam na ko gouvernement bi yëpp xam nañ ko te boo demee ba Saoudiya boo demee ba Minan fum mu mbir bi yëpp xat fu mu coono am nga xam lan mooy muxayyamaat ahli nahwi foofu la ñu ay seen barab. pour képp ku amul fu mu dem mu ñëw ci ñoom ñu dalal ko ñaata nit la yóbbu ci Makka yàlla rek moo ko xam ñaata jumaa ji la am ci Afrique bi yëpp ñaata école la am loolu yëpp ñu wax rek fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin kon buggu dëkk bi nga nekk buggu quartier bi nga nekk buggu ay nit yu baax ñu la bugg ci yàlla moo tax ñu am gan yu mel nii buñ ko amee ñu invité ko amul temps mais comme ne na wax na ne alquran moo ko invité moo tax mu ñëw ci barabu alquran ñu ngi ko wax eh, ahlan wa sahlan waxtu bi xat na léegi ñu julli moo tax il faut ma yemale kàddu bi pour mu jox ko moom mu sàññu ñu kàddu loo xam ne daneen yo am yokkutati ci zahir ak ci baatin yokkutati alquran ba parents yi xam valeurs yi lu ñu am fii ak lu ñu nekk fii ak lu ñu seen doom nekk xam nañ ko moo tax ñu indi leen mais wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin fàttale fàttale dafa baax ci jullit kon nuti lkalima لأن الوقت قصير لسيدي فضيلة الشيخ محمد الحافظ النحوي ليشنف آذاننا بكلمة تحث الآباء التلاميذ على أن يهتموا بالقرآن وأن يهتموا بتدريس القرآن لأبنائهم وكذلك قيمة القرآن في تربية الأجيال الصالحة التي ترفع هذا العالم وترفع الإسلام فجزاه الله عنا كل خير ومرحبا وأهلا وسهلا لو قيل غير مرحب بالمجتبى لكان قولها بكم هبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا من لم يقلها لا جرى ولا حبا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وثبات أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا المجلس المبارك سمعنا أطفالا صغارا يرتلون القرآن سمعناهم يرددون أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بنين وبنات في هذا الحي المبارك في هذه البلدة الطيبة بلدة طيبة ورب غفور رأينا ثمرة جهود مباركة رأينا ثمارا لغرس ثمين وهذا الغرس الثمين وجهاد لله وفيه لتعليم القرآن لأبناء المسلمين وأبناء المسلمات في هذا المقام أتوجه الشكر الخالص مشفوعا بالدعاء عن ظهر غيب لكل الذين وقفوا في الماضي والحاضر مع معهد الإحسان ومع سيدي وحبيبي الشيخ الهادي من الشيخ النعمة بن عبد الله حفيد شيخ الإسلام شيخ إبراهيم بارك الله فيه وفي جهوده وفي همته وقديما قيل على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وقيل إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد سيد الهادي نموذج لشبابنا وأشيد هنا بهذا الشاب الذي جمع بين شجرتين وبين دوحتين عظيمتين دوحة علوية ضاربة في الأعماق لمن لا يعرف أو لمن, لا يع... لمن يعرف من هو الهادي بن النعمة بن عبد الله من يعرف والده ووالد ذلك ووالد ذلك خمس شموس جوهن مظلم أما الدوحة الأخرى فلا تحتاج إلى التعبير يدوحة شيخ الإسلام شيخ إبراهيم لوالدته السيدة ندية مريم من شيخ الإسلام شيخ إبراهيم ليس ما قد يقال فيه بمغن والذي لا يقال ليس يقال كما قال السيد الشيخاني رضي الله عنهم أجمعين سيد الهادي شاب ذو همة بارك الله فيه عليه كان بإمكانه أن ينتج في مجالات الحياة المختلفة وهو مثقف وله يد في الإعلام وله يد ولله الحمد وأخذ شهادات فكان بإمكانه أن يسير في مسارات متعددة من مجالات الحياة المختلفة وربما كانت هذه المسارات أيسر بالنسبة له لكنه اختار مسارا عظيما عند الله تبارك وتعالى على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار أن يساهم في إعلاء كلمة الله بين عباد الله واختار أن يبدأ بالأصل وبالنواة بالأطفال بنين وبنات بالأسر اختار أن يحرز فيهم شجرة القرآن لأن هذا القرآن هو بطاقة التعريف الخالدة لهذه الأمة كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طرفوه بأيدينا وبيد الله سبحانه وتعالى وهو كما عرفه الإمام علي كرم الله وجهه الذكر الحكيم والصراط المستقيم هذا القرآن الذي جعله الله محفوظا إلى يوم الدين هذا القرآن الذي نال أهله الخيرية نالونا نالوها في الدنيا وهي وسامهم في الآخرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه بارك الله في سيد الهادي وأعانه وجميع أعوانه وكل من وقفوا معه وكل من حضروا هذا المجلس المبارك من أعيان كرام مدير المركز الثقافي ببلادنا بموريتانيا والمشايخ الآخرين وأهل الحي كل هؤلاء كل باسمه وجميل واسمه وبارك الله في الأمهات وبارك الله في الآباء وجزا الله خيرا هذا الشباب النير ومستقبل الشباب في هؤلاء الأطفال بارك الله في الجميع وأقول لكم أن هذا العمل عمل يزلج الصدور فإلى الأمام برعايته إن شاء الله نرى هذا المعهد معهد الإحسان في مراحل متعددة نراه بنايات مباركة شاهقة نراه فصولا في مختلف المجالات نراه في مراحل متعددة كل ذلك يأتي بإذن الله على قدر الهمة وعلى تطبيق قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى Je voudrais seulement dire à nos frères, c'est un paragraphe que j'ai réservé pour les Français, euh, Bahal Mamboki, voilà, واخنا ولف توتي دنجا توتي لكن بعد ما حق je parlais en français parce que c'est une langue qui est, euh, qui est bien utilisée ici. Je veux dire que c'est un travail véritablement honorable. que fait mon frère, mon jeune frère, mon fils, Cheikh Hadi, que j'ai connu depuis quelques années, avec lesquels j'ai collaboré, en lesquels j'ai découvert quelqu'un euh, digne de confiance. Digne de la confiance, il a une volonté, et la volonté, c'est la clé de la réussite. Alhamdulillah, voilà qu'il a réussi ici à Westford, un institut, l'Institut Ihsan, La dénomination d'ailleurs n'est pas gratuite. Si vous savez que l'ihsan, ça, ça, euh, ça, revient à Makam al-Ihsan. Makam al-Ihsan, c'est le statut suprême de notre religion. Makam al-Ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a identifié en disant quand Jibril l'a questionné en lui disant Mel ihsan il a dit l'ihsan, an ta'bud Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. L'ihsan, c'est la liaison directe avec Allah. Donc un institut nommé l'ihsan, l'ihsan c'est la bienfaisance, mais l'ihsan aussi c'est la pureté des cœurs. L'ihsan c'est véritablement visage qui donne. Donc le nom de l'institut est très bien choisi. Et l'opérateur de l'institut a été également, Allah l'a bien choisi pour vous. Je voudrais vous dire ce que je n'ai pas dit en arabe. J'ai dit en arabe que euh, Hadi, avait la possibilité d'aller dans, aller dans plusieurs directions. C'est un intellectuel, c'est un jeune animé de grande volonté, c'est un ingénieur de relations, il peut faire beaucoup dans plusieurs domaines. Et il peut produire partout où il va. Et il a choisi ce lieu. Il a choisi le Sénégal, d'ailleurs, qui est notre choix tous, c'est notre deuxième patrie, sinon la première. Nous aimons tous le Sénégal. Nous l'aimons avec toute fierté. Ça fait partie de nos préoccupations majeures. Nous cherchons la paix, la sérénité, l'entente, la fraternité pour le Sénégal. Nous cherchons la réussite pour son président, pour son gouvernement, pour toutes ses composantes, pour son peuple. C'est un peuple euh, qui constitue avec le peuple mauritanien un seul peuple. Des pays qui en font camp. Euh, et, euh, je disais que Cheikh Hadi pouvait être maintenant en Mauritanie. Nous avons besoin de lui en Mauritanie. On a besoin de être au Nigeria, c'est grand pays avec lequel il par beaucoup de relations. Je l'ai vu avec l'émir de Kano. Il peut être dans d'autres pays. J'ai choisi d'être avec vous ici à Westphal. le par de bonnes mains. Épaulez-le. Aidez-le. Soyez avec lui, corps et âme. Parce qu'en réalité, il fait de sacrifices. Qu'Allah les guide, de jërëjëf yàlla na yàlla fay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. géero géer ñaa ngi nii daal Muhammadu Rasulullah Abdallah baay ba Mustafa Amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na bee